الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk yi gannaaw ba ñu sante suñu boroom ñaan ko mu julli suñu yonente ba sallallahu alayhi wa sallam suñu xutbab tey bi ñi ngi ko jëmale ci fàttali moo jaam bi naka lay def ba suñu boroom yàlla bëgg ko suñu borom yàlla mi bind lépp suñu borom yàlla mi moom lépp borom yàlla boobu nga xam ne ci loxoom la lépp nekk sa dund sa dey sa wërsëg sa texe sa texey di mbokk nu ñuy def ba yàlla moomu bëgg bëgguñu yàlla moomu nga xam ne bu la bëggee asamaan ak suuf buñ la bañoon du la wàññi dara yàlla moomu nga xam ne bu la bañee asamaan ak suuf buñ la bëggee du la wàññi dara mbokk lu ñuy def ba suñu borom yàlla bëgg ñu yàlla moomu nga xam ne bu la bëggee dana woo jibril alayhi salaam na ko jibril sama jaam diw bëgg naa ko jibril wàcc ci malaaka yi na leen ay yéen malaaka yi jaamu yàlla diw day ca kaw suuf yàlla nee na bëgg na ko man day bëgg naa ko ni ngeen ko bëgg malaaka yépp boo ko la bëgg suñu borom yàlla wàcc mbëggeel googu képp koo xam ne jaamu yàlla bu baax ci kaw suuf bu la gisee bëgg la bu la déggee bëgg la ma ndax mbokk jurit lii am na leneen lu ko mën a remplacer ndax président de la république jar na lii ndax ay milliards jar na lii ndax dundoon fi mille ans jar na lii déedéet mbokk julit li gën a kawe yow julit bu doon te ne xam nga mooy fexe ba bokk ci jaam yi yàlla bëgg yàlla nañu yàlla boole ci jaamam yi mu bëgg mbokk jaam bi yàlla bëgg sunu borom yàlla tegtal na ko nee na su ngeen bëggee yàlla bëgg leen toppal leen ma sab yonent su ngeen ko toppee de yàlla bëgg leen mbokk loolu mooy bunt bi gën a mag ñu gëm yonent yàlla bi topp yonent yàlla bi gëm ko na ko yàlla bëggee ñu gëmee ko ko toppee ko naka yàlla bëggee ñu toppee ko ko loolu day la suñu borom wax ne bu ngeen ko defee suñu borom yàlla dañu leen bëgg loolu ëmb lépp nag am na leneen lu ñuy mën a déggee ci biir bokk na ca topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir am ngërëmal yàlla yow julit nga bokk ci ñuy rafetal suñu borom mu ne inna allaha yuhibbul muhsinin nga rafetal sa jaamu yàlla lépp lay toppe yonent ba ci julli yaag koor ya ci zakkaat yaag aj màkka ya lépp lay toppe yonent ba ci def lu baax ci ku mën a doon nga la waaye nga jublu ca ngërëmal yàlla rafetal ko gën jaa màggi rafetal loolee la yonent bi waxoon ni suñu borom yàlla day bind nag rafetal ci lu mën a doon mu ne bu ngeen demoon bay rendi seen xar sax rafetal leen ni ngeen koy rendee su ngeen demoon bay rey ab yéefér rafetal leen ni ngeen koy reyee ndax yàlla daa bëgg rafetal ci lu mën a doon loolu nag mbokk jullit dafay wëlbati ko ci ñaari mbir rafetal sa jaamu yàlla gi nga xam ne ak yàlla dong ko siq mu julli yaa koor ya waaye rafetalit lala lënkale yeneen jaamu yàlla ya loolee ca zakaat ya la loolee ci def njëkk ca wayjur ya la te def njëkk ca njaboot ga la dëkkandoo ya mbokk ya xarit ya képp koy jëflanteel nga jëflanteel moom ci njëkk waaye nga la waaye nga jëflanteeg njëkk heure boo xamee ne yaa ngay jaay wala yaa ngay jënd yaa ngay liggéey yow maçon bi yow menuisier bi yow informaticien bi lépp luy liggéey nga rafetal ko jublu ci payug yàlla avant nga ciy jublu payug doomu aadama yi mbokk ñu mel nii day suñu borom yàlla mu ne dañu leen bëgg looloo tax ba julit day rafetali waxam rafetali jëfam rafetal léppam jublu ca ngërëmal yàlla jalla wa ala mbokk bokk na ci lu dugg ca bunt bu màgg boobee ba tey mooy suñu borom nee na inna allaha yuhibbu sabirin mooy ngay muñ muñ googu dafa séddilikoo ci ñetti mbir ba ca gën a màgg mooy muñ ba def santaane yàlla yi mbokk koor daa laaj muñ jihaat dafa laaj muñ yeewu njël dugg ci ndox mi di sangoo ko jàpp daa laaj muñ ñu lépp loo xam ne nii ak jaamu yàlla la boo muñul doo ko am loolee mooy ba nga xam ne moo ca jëkk ba nga xamee ne yii itamit bokk na ci wàllu muñ googee mbokk julit mooy muñ ba jubbanti sa njaboot teg leen ci yoonu njub loolee ni la yàlla sante nga góorgóorlu ci njub la la yàlla sante nga góorgóorlu ci njaboot gi loolu tax mbokk nañ muñ ci njaboot gi bu ci découragé foo tollu del digle lu baax del teru lu bon del woo del wax del yedd ba baa ngay daje ak sa borom jalla wa ala lii la ñu yàlla subhanahu wa taala sant gannaaw ba mbokk julit ñu daal di muñ la nga xam ne mooy bàkkaar yi mbokk bàkkaar dafa neex lool seytaane ko taaral njaaloo neex na lool lekk riba alal yoo xam ne liggéeyoo ko neex na lool la nga xam ne moom mooy dem ca naan sàngara neex na lool lu waral loolu mooy seytaane moo ko taaral nga la wayow julit muñal loolu nga xam ne da lay dikkal muñal ma alal ju lewul muñal ma njaaloo muñal ma jaxasoo góor ak jigéen sajjal ma say bi say say bët téyal ma say nopp lépp loo xam ne daganul nga koy seetaan bu ko seetaan direct la am portable la am télévision la xoolal lépp loo xamee ne nii ak mooy yàlla la nga muñ ba bàyyi ko loolee mbokk mooy ñaareelu muñ ba am na ñetteelu muñ ba mooy na nga muñ dogal yi yàlla dogal ci yow yàlla mën na dogal ci yow nga ñàkk muñal muñ gu rafet bul gàddu sa saak yow soxna si ne da ngay njaaloo ji bul dem ne da ngay pays mi bul dem da ngay agressé bul dem di war a ko wuruj muñal muñ gu rafet feebar baa ngi nii muñ ko muñ gu rafet faju faju bu dagan lépp loo xam ne nii ay tiis la yu lay jóge ci yéeféer ya ak naafiq ya ngal la waay muñ ko muñ gu rafet loolu moom mooy ñetteelu mbir ba aju ci muñ googee ngal la waay yow julit ngir nga am ngërëmal yàlla xamal ne bokk na ci loolu mooy ñu góor góorlu fexe ba doon aji maandu suñu borom mu ne wa waqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin yow julit maandul del wax dëgg del att dëgg mu doonte ne dëgg gi da nga koy wax ñu condamné la boo ko waxee sa yaay ak sa baay li ñuy condamné ngal la waaye waxal dëgg doomu aadama bi jege gam la jege jëriñ gam lay jëriñ na doon daa am kattan wala daa néew doole suñu borom nee na bu mu tax mukk ngeen jéng na ngeen maandu wax dëgg lii mbokk la ñu sant képp ku mën a doon ci biir société bi suñu borom yàlla mu ne ñooñu day yàlla mu ne def leen a bëgg mbokk julit bokk na ci ñu yàlla bëgg subhanahu wa taala mooy ñu baril ak tuub suñu borom yàlla moo ñu nattoo doomu aadama bi koo mën a nekk bakkaar jomb la ndax bu ko yàlla doon teggil kenn teggil ko ay yonentam te yonent yooyu dañ doon def bakkaar bakkaar yi méngoog ñoom na am yàlla musaloon na leen ci kabair ya waaye doon nañ def bakkaar yi méngoog ñoom looloo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ñaax nit ñi ay waay tuub leen di dellu ci seen boroom man day amul benn bis lu dul danaa tuub di dellu ci yàlla lu jege juróom-ñaar fukki yoon beneen riwaaya ñu ne lu jege téeméer yoon loolee mbokk mooy tuubug jaamu yàlla am naa heure boo yégee ni sa làmmiñ wi kat tarxis na ba wax lu wurta wax ci derub jàmbur ci lu mën a doon wala jëf joo xam ne jëf nga ko waroo ko woon a jëf ngal la waay gaawul tuub tuub googee nga tuub dellu ci yàlla nangu ne ah yàlla day tooñoon naa sa bopp waaye xam naa ne yaay jéggale bàkkaar yàlla ñëw naa di jéggalu ci yow ñu mel noonu yàlla da leen di bëgg yàlla daa bëgg jaam yi nga xam ne bu ñu defee bàkkaar daal di koy tuub ay yow mbokk julit heure boo bëggee yàlla bëgg la doonal ko laab inna allaha yuhibbul mutahirin aw mutatahirin ña nga xam ne dañuy laab laab ga jiitu mooy moytu lépp luy sobee shirk lépp luy sobee bidaa moytu la nga xam ne nii mooy jege ak njaaloo xatta sa soxna laab ga mooy bu ko jege ci jamonoy règle bu ko dikkal fa góor jigéen ñi di dikkee laab ci foo mën a toll nga góorgóorlu di ànd ak njàpp boo waree sangu farata nga sangu farata ñii nga xam ne dañoo saxal lii day suñu borom yàlla mu ne dafa doon ñoo xam ne da leen a bëgg ay yow mbokk julit góorgóorloo sa dund gi yépp nga def ko ca la nga xamee ne nii ak ragal yàlla la suñu borom yàlla mu ne inna allaha yuhibbul muttaqin ñan ñooy al muttaquun mooy ñi nga xam ne lépp loo xam ne bi ñu yeewoo ba baa ñuy dellu seen kawlal bala ñoo jëf dara bala ñoo wax dara daan jëkk analyse ci seen xol mu ngërëmal yàlla fan la nekk ci fii loolee mooy la nga xam ne mbokk mi ak taqwa doo def dara lu dul nga jiital ca xalaat lan la ngërëmal yàlla fan la ngërëmal yàlla nekk fii loolu tax ba jullit dëgg mooy ki nga xam ne mooy wax ne inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin jullit mooy xool ay julleem ay jaamu yàllaam waaye lépp loo xam ne ma nga cay dund lépp loo xam ne ak deeyam la day xam ne ngërëmal yàlla dong la cay sakku te it mu xam ne loolu moo tax loolu la ko yàlla sant ndax yàlla bi mu lay indi ci kaw suuf indi wula woon lu dul nga daal di koy jaamu jaamu ko mooy sakku ngërëmam daw la nga xamee ni ni moom mooy ay tereem ay yéen bokk jullit na ngeen xam ne bokk na li yàlla subhanahu wa taala bëgg mooy ñi nga xam ne dañuy wékku ci moom inna allaha yuhibbul mutawakkilin ngan la waay xamal ne mbokk àdduna yàlla ñu boole ak i jafe-jafe ak koo mën a doon dana am xat-xat yoo xamee ni nii mënoo ca dara su ko defee wékkul ci yàlla sukkandikul ci yàlla bul jàq mukk sa xel ne yar ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa yamliku laka darran wala nafa mënalu la dara bu sa xel dem ci jibril mënalu la dara asamaan ak suuf buñ daje woon mënuñu laa teggi lor mënuñu laa ñoo jël njëriñ kenn dong moo yor lépp ci loxo muy sa borom jalla wa ala looloo tax lépp loo yaakaar ca sëy ba ca commerce ba ca tukki ba ca examen ba ca njàqare ba nga bëgg mu tekkeku lu mu mën a doon tawakkal alal hayyi lazi la yamut wékkul ci yàlla mi nga xam ne moom dong mooy kuy dund ca du dee ba faw keneen ku dul moom dee na wala bis dana ñëw mu mas a dee loolee mbokk ñu mel noonu nag nga xam ne seen lépp dañ koo delloo yàlla borom bi mu ne ñooñu day inna allaha yuhibbul mutawakkilin su ko defee mbokk julit lii day ab jukki la ci ay mbir yoo xamee ne nii jàng nañ ko ci téerab yàlla bi képp koo xamee ne nii mi ngi ci taxaw dana am la nga xam ne mooy cefeelug yàlla waaw ban mandarga nag moo koy wane moo ko mandarga bi wane na yàlla bëgg la suñu borom yàlla waxal na ko boppam borom bi nee na sama jaam bi jege wu ma lu ma gën a bëgg li ma farataal ci moom li yàlla gën a bëgg yow jullit nga defal ko ko mooy waxtu julli juróom weeru koor aj makka génn zakaat lii la yàlla gën a bëgg mu ne nag sama jaam du deñ di ma gën a jege ci naafila lan mooy naafila mooy ndollont yàlla du nangu naafila ca farata ñëwul amma bu farata ñëwee nag yàlla nangul lay naafila du deñ di ma jege ci naafila ba baa ma koy bëgg su ma ko bëggee man yàlla may doon la nga xam ne mooy noppam yi muy déggee dootul nangoo digg di bànneexu lu dul lu neex yàlla heure bu déggee lu neexul yàlla day mel ne kaañu lañu sànni ci xolam may doon bëtam yi muy seetaani du nangoo toog mukk di seetaan lu dul lu neex yàlla lu ma gis ngërëmal yàlla nekk ci da koy gërëm ba ca merum yàlla nekkee da koy da koy naqari da koy mere may doon loxoom ba muy jële ah loxoom bii du ci teg mukk loo xam ne nii alal ju xaram la du ca dóor mukk koo xamee ne nii waru ko caa dóor du ca laal kenn koo xam ne waru ko caa laal may doon tànkam ya muy doxe tànkam yi du ko jéego mukk di ko jëmee fu neexul yàlla jalla wa ala waaye it da ngay gisee ne la nga xamee ne mooy noppam bee ma nga cay déglu lu neex yàlla bët ya ma nga cay sital lu neex yàlla loxo ba ma nga fay jële fa neex yàlla di delloo fa neex yàlla tànkam ya ma ngay jéego jëm fa neex yàlla jàkka yaag place xam-xam yaag ay yu mel ne noonu mbokk lii borom bi subhanahu wa taala ne na mooy mandargab ki wane yàlla subhanahu wa taala bëgg ko mooy tënku na ci doo ko gis lu dul lu muy waxe lu muy jëfe mooy la ngërëmal yàlla nekk su boobaa nag borom bi nee na su ma ñaanee danaa ko may su xeccali koo ci mën danaa ko xeccali mi ngi noonu lii mbokk mooy kon trésor bi gën a rëy boo xamee ne doomu aadama dana ko am ci kaw suuf mooy dem ba borom asamaan ak suuf bëgg ko borom asamaan ak suuf farandoo ko sant ay malaakaam ñu farandoo la su ko defee loolee teraanga àdduna la lay jural jural la teraanga àllaaxira ñu ngi ñaan suñu borom moom mi nga xam ne mooy tànn ci ay jaamam ñakka ca neex yal nañu yàlla boole ca jaamam ya mu bëgg yal nañu yàlla bëggloo la mu bëgg yal nañu yàlla bañloo la mu bañ yal na yàlla may ñu dund gu dagan gu tey guy dëppoog léppam mu doon ngërëmam yal nañu yàlla faat ci ngërëmam dekkal ñu ca mbooloo ya nga xam ne da leen di kaweel ca bëgg leen dafa leen jannatul firdaws mi seen wàccuwaay allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi l axirati xasana wa qina azaba annar اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا برحمتك من الراشدين اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين